ti euh, ma dellu foofu nga xamante ne moom moo di euh, cosaan euh, fekk fa Chérif Dia Chérif maa ngi lay nuyu Chérif maa ngi lay fay Sarah di nuyu Souleymane di nuyu mbokk téléspectateurs yi seetaan télévision Futurs Médias ci biir réew mi ak ci bitim réew Chérif naka la dégg-dégg bi nag moo neexul torop dégguma la bu baax gis naa ne daal tey moom xam naa yaa ngi waajal ba suba tey bu baax a baax a baax Chérif ndax yaa ngi may dégg waaw maa ngi lay dégg bu baax Sara maa ngi dégg euh, di euh, nuyu téléspectateurs yi comme ni ma ko waxee di nuyu également Souleymane moom nga toog ak ci plateau bi. ñu ngi lay fay bu baax Chérif waa naka euh, mën nañu wax naka mbir yi foofu foofulee cosaan fa nga xam ne fa la ñuy amal sunu plateau tey si guddi. fii nag moom euh, daanaka lépp yemb na ci wàllu euh, daanaka lépp yemb na ci wàllu technique su ko defee rek Sénégal yi mën a seetaan li nga xamante ni kon moom moo tukkee ci élection présidentielle bi tey bi kon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février kon ci atum 2019 muy kon euh, bis bu am solo ci taarixu Sénégal moom moo tax kon. Futurs Médias de manière générale ak télé bi. jël na ko ngir rek soirée électorale bi également ñu mën ko amal fii bu première tendance yi di daanu ak lépp loo xamante ne kon tukkee na rek ci mbañ gàcce Sénégal yi nga xamante ni kon ñoom ñooy voté moom moo tax kon ci wàllu ni kon lépp yem na ngeen gis ko nii ay plateau yu yaañ yi macha allah am solo lool euh, li wàllu télévision daal ci wàllu révolution saara mën nañoo jàpp ni kon tey jii dara du ëmp Sénégal yi nga xamante ni ñoom ñoo tànn télévision Futurs Médias nekk miroiru Sénégal su ko defee rek incha allah rabi élection yi ñu mën ko dund comme ni mu ndax day moment boo xamante am na solo ci histoire wante également ci taarix te groupe bi ñu koy defee saa su nekk tey jii également moom moo tax ñu dàmbali ko ki nga xamante ni moom mooy cosaan nekk ci Sicap Rue 10 am na ci amit loo xamante ni tukkee na ci bureau de vote yi nit ñaa ngi commencé génn sax di vote ji ndax euh, ay semaines yu néew moom moo des huit heures jot su ko defee ñu daal di ubbi bureau yi ni daal fii ci wàllu euh, dispositif moom euh, dispositif TFM bi am na solo solo goo xamante ni incha allah rabbi bu ñu ba ci cëppaandaw ga sénégalais yi dinañ déggaat ci télé bi ndax moom moo tax euh, jërëjëf Chérif Dia euh, di la retrouver su kaname ndax euh, tey ba tey ci coppite yi nga xamante ne rek indi nañ leen ko jagleel ko li nga xamante ne moom mooy couverture bi ndax bés bi moo ko laaj Chérif dina teew bu si kanamee fii ci plateau bi di moom nag moo ñuy defal li nga xamante ne mooy récapitulatif bi ndax tey plateau yi ci loolu laa doon bëgg ñëw sax Souleymane ginnaaw bu ñu xuusee si sunu statisticien ñuy am ah priorité au direct ñu ngi may